Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. di la delloo nuyoo bi di la négee cant gu rëy di la négee cant gu rëy gun la ameel gun la ameel xam nañ sa doxin yëpp seen bët. xam nañ sa doxin yëpp ndax lépp teg nañ ci suñu bët. waaye li nga xam ne nag am nañu am warugaru bañ la cee sant. waaye li nga xam ne amuñu warugaru bañ la cee sant. mooy li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. am na yitte ju fi nekkoon. joo xam ne mel ni mënul woon a ci dëkk joo xam ne mënutoon a ñàkk ci dëkk bi. yàlla mu ngi ko jaarale ci sa loxo. yàlla mi ngi ko jaarale ci sa loxo. ba sotti ni ñu ko bëggee woon. ni ñu ko bëggee woon. loolu mu ngi fii mooy titre foncier Touba. ak leneen loo xam ne. ak leneen loo xam ne. bëggoon nañ ko ca Ndakaaru nañ ko ca Ndakaaru googee. ndax dëgg ndax dëgg la ndakaaru mooy capitalu Sénégal. loolu tax eh, bi sëriñ ba loolu moo tax bi sëriñ bi sooboo ngir liggéeyal boroomam. ndakaaru googee. ndakaaru foofee la jaar jaarin bi di jaarin wu tiis. jaarin wu nag di jaarin wu tiis. loo xam ne nag du jóg mukk ci sunuy xol. loola ñu bëggoon fa firnde ju rëy loolee ñu bëggoon fa firnde ju rëy ndamal Serigne Touba lay loo xam ne ndamul Serigne Touba lay doon. loo xam ne ñëpp dañ ci mën a teg seen bët. loo xam ne ñëpp danañ ci mën a teg seen bët. muy mooy liggéey boobee di juma joojee ñu def ci Ndakaaru. loolu ku ne xam na taxawaay ba nga xam ne taxaw nga ko ci. foofee mu nekk rawati ca. foofee mu nekk nag rawati ca. loolu muy lu waroon a jafe. loolu muy lu waroon a jafe. loolee yàlla jaarale ko ci sa loxo. muy itte ju mat sëkk akuk dogo ba loola am. alhamdulilahi rabbil alamin mel na ni egg na ci nan ko bëggee woon. incha allahu ci septembre septembre bii di ñëw. te incha allahu septembre bii di bëgg a ñëw. le 27 ajuma ci lañ ko bëgg a ubbi loolu nag. loola nag ndamal sëñ Tuubaa lu la waaye wax dëgg yàlla am nga ci wàllu rëy ndax yàlla moo ko dogal waaye ci sa loxo la ko jaarale kon ñaar yooyu kon ñaar yooyu yëpp sax ndax yi ci des yëpp sax li ndax li nga xam ne am nañu ci war garu mënuñu la cee ñàkk sant moo moo tax bi nga waxee ne da ñëw moo tax bi nga xamee ne wax nga ne da ngay ñëw tey siyaare si. ma xalaat moo tax ma xalaat sama bokk yu baax yii. dëgg la kilifa yi yoon wi dajewul. dëgg kilifa yoon wi yëpp dajewuñ fi. waaye tànn naa ñoo xam ne. waaye tànn naa ñoo xam ne. bi ngeen leen bi ngeen leen fi fekkee. bi nga leen fi fekkee. mel na ni fekk nga fi kilifa yi. na ni fekk nga fi kilifa yoon wi yëpp. mel na ni fekk nga fi taalibi yëpp. ndax ñi fi teew ñëpp kenn ku ci ne. ku ci nekk yoon wi rek moo di ak dundam. te xam nga doxinu yoon wi. gannaaw ci ay cant lañ la ameel. nu sàkk lim boo xam ne. danañ mun wuutu kilifa yi. wuutu bokki taalibi yëpp. ñu seereel la. cant goo xam ne goo xam ne yoon wi ameel na la ko ci yaari yëf yooyu mën nañoo yem ci yooyu rek xam ne li ci des lépp waaye lii moom amuñu war goru bañ la ci sant kon nag bokk yaa ngi nii yoon waa ngi nii ñëpp sant nañ la gërëm nañ la ci taxawaay bi nga taxaw ci Touba ak taxawaay bi nga taxaw ci Ndakaaru ak liggéey boobee toll ci sotti loolu amel nañ la ci cant gu rëy kon maa ngi ànd ak bokk yi ku ni kilifa yi mel na ni kilifa yeeg taalib yi yëpp daje nañ ñu ngi lay seeral cant goo xam ne yoon wi amel na la ko loolu mooy kàddu yi nga xam ne laa bëggoon a wax ànd ak sama bokk yi seeral la ko mooy li nga xam ne moom lañ doon liggéey. boo ñëwee. boo ñëwee. nga xam ne. ameel nañ la cant gu wér. waaye sant nañ la cant gu wér. gërëm nañ la. ci taxawaay boobu. sa diggante ak sëriñ loolu mooy li nga xam ne amoon naa ko ci lu ma la wax. sant ko lool nag la lool nag ci jotaay bi. li nga nu wax lépp dégg nañ ko. wax lépp dégg nañ ko. mu xam nañ ne yéene ju mat sëkk la. liggéey bu rëy rëy la itam. liggéey bu baree baree la itam. loolu it dégg nañ ko bu baax. loolu gën naa dalal suñu xel. ci li ñu bëgg ci Touba. gën naa dolli sunu yaakaar itam. kon jërëjëf kon jërëjëf. li nii dégg nañ ko bu baax a waaye nag dama baaxoo lépp lu may def dafa am ñu ma cay waxal. loolu rek la. waaye déglu nu rek. bi ñëw nag ba ngay ñëw nag fekk na sëñ Atou mii nga xam ne moo nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah teraanga yëpp moom laa ko moom laa ko tegoon ci loxo yow nag mi ngi ci sa coobare teraanga yëpp a ngi fi fa nga daan dal itam ñu di la fa teral hmm, bu la neexee teraanga yi ñu yóbbu lépp foofu nga dem foofu bu la neexee ñu fab lépp